jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara tabaarakallahu noo ngi war a dugg ci semaine bi mujj ci séminaire bi semaine bi mujj ci séminaire bi ci la ñu dugg waaye xam ngeen ndajem tey mi dina wuuteeg ndaje yi weesu ndax ndaje yi weesu saal bi daf doon fees del macha allah ba beneen saal bi sax président abaloon nanu ko ñu defoon ci ay écran ak ñoom seen yooyu tey nag monsieur le président moo toog jàkkaarloo xeet wi sàkku ci ñoom rassemblement yeeg ñoom seen yooyu ñu dakkal ko ab diir monsieur le président nangul nan la ko mu tax tey séminaire bi salle bi man rekk maa fi nekk maag sama technicien bii di cuun ñun rek ñoo fi nekk ndax nouvelle technologie may nanu ak ni ñu liggéeyee salle bi séminariste yi mën a continuer séminaire bi ci seeni kër macha allah ndax bi ñu ñëwee bay def feuille de présence bi donte rëy na nag lool macha allah waaye jëloon nañ ci turu ki bokk séminariste santam adresse am numéro téléphone am email am yooyu yëpp amoon nañu ko moo tax euh, sama technicien bi am na nu ko defee noo xam ne lii mbooleem séminariste yi ñëpp macha allah ñi ngi ànd ak ñun jataay bi waaye ñi ngi seeni kër waaw ñu ngi seeni kër ñoom ñëpp tabarakallah yàlla na yàlla sàmm leen comme trois semaines la incha allah jombul rek mu ngi noonu ñu àggale ko nii ngeen toog seeni kër man rek maag sama technicien bi ñu nekk fi ndax feebar bi ci pinc mi dégg ngeen ni ko woy kër docteur yi waxee waaye dégg ngeen ni ko président waxee kon ñun tam nangu nañu euh, rassemblement bi ñu delloo ñëpp ñëwoon ci salle bi ñu ne leen toog leen seeni kër te nu continuer suñu séminaire noog yéen waaw macha allah technicien bi eh, def na noonu ba fi nekk ñëpp ñàkkoon ci séminaire bi ñoo ngi nuy am en direct ci seeni kër no seulement son waaye ñu ngi am image bi waaw ci seen kër yi loolu nag sunu borom moo ko may doomu aadama ndax ci bindi wees yi nag jàngoon nañ ci eh, i'dad al al yi maanaam dund groupe ak dégg ndigal dund groupe ak dégg fi ma toog nii sànq rek ñi ngi may woo ci waaw daara ji moom nu ñuy def ma ne leen topp leen ndigal li président nee na ñu tëj fekk ñetti semaine ba ñu ngi woo parents d'élèves ñoom ñëpp ñu ñëw jël si seeni doom alhamdulillah yàlla ku baax la yàlla ku baax la waaw mbokk yi kon nag nu bàyyi xel ci ne séminaire bi day continuer séminaire si ñoo ñëwul waaye ñu ngi seeni kër ak ñi nga xam ne jotoon na nañoo wax ne dañoo bëggoon a bokk donte ay mag lan tey dañu ñëw ci tomb bu am solo mu jëm ci tomb waajal ndaw ñi ci wàllu tàggook ñoom nag ñu dellu waaw tàggoog ñoom tabarakallahu ñu bëgg waxtaan ak ñoom ci ñetti préparation al fikri al waaw ndaw lu na ci pénc mi te ànd ak ñun séminaire bi te ñu nekk tey ci kër yi waaye incha allah jombul dana mën a continuer jataay bi ci noonu danu jël benn waajaay itam buy mottali waajaayu ndaw ñi te mooy waajal xalaat yi waajal ruux yi waajal action yi waajal xalaat yi dafa bari ndaw ñoo xam ne seeni xalaat jar naa waajal jar naa defar ndax bu fekkee ne defaruñ say xalaat léeg-léeg nga gisee mbir noo xam ne du noonu te ndaw comme lépp daf koo soxla dafa war di tànn ndax ku ñuy taamu te doo tànn mën ngaa bëri la waaye doo baax le kon ndaw ñi waajal leen ci xalaat mooy tax ñu xam kan mooy royukaay yi ñan lañ war a roy ñuñ war a àndal ndax am na ñoo xam ne ci pénc mi li ñuy woor ndaw ñi du intérêt ndaw ñi du intérêt réew mi seen intérêt bopp la te ndaw ñi nga xam ni amuñu seeni xalaat lu jóg ñu topp la te ndaw warta nekk yor jikkoy golo golo mooy def lu mu gis toppandoo ko waaw bi ñuy jàngale ci ndeysaan école bële ca Louga di Manaarul Huda yàlla yàlla yërëm Ahmed Moubarak Njéeme loo ma ko ubbi woon waaw maag ñoom mësa ñoo fa nekkoon ak ñoom ngañ mbay ak ñoom góor gi aatu <laughs> chet te waaye la amoon na solo waaye dama mës a léebal gone yi ca kuur ba lu am solo mooy jenn waaye daf doon jaay ay mbaxana ca Maroc mbaxana yu rafet yooyu nga xam ne euh, dafay xonq ba am ba noppi am laar bu ñuul waa ji di jaay ay mbaxana yor na ci loo war a mat juróomi duuseen wala yu ko jege mu dox ba sonn nag jóge Tànja jëm ci beneen dëkk bi mu sonnee mu jaaxaan ci ker gi di nelaw comme dafa nelawaale mbaxana golo yi ci àll bi gis ko daal di séddoo mbaxana yow golo gu ne sol mbaxana <laughs> golo gu ne sol mbaxana mu xool garab yi seen garab yaa ngi xonq coy yakki mbaxana waaw waaye mu xam jikkoy golo mu daldi summi mbaxanaam golo yi xool ko ñoom it summi seeni mbaxana mu daldi tam tam mbaxana mi ci loxo yi golo yi daal di tam seeni mbaxana mu sànni mbaxanaam golo yu sànni seeni mbaxana mu ramaase mbaxana yu ñibbi seetetet <laughs> loolu lu am solo la euh, ndaw warta mel ni golo di toppandoo déedéet da ngay gëm sa bopp waaw daal di taxaw incarne li nga doon ba doon ko waaw incarne li nga doon ba doon ko léeg-léeg ma wax leen ko lu mel ni ñoom yaa naa maar mii tabarkàlla yàlla na sàmm leen kon dañuy waajal ndaw ni ci xalaat ku muy àndal ci diine ku muy àndal ci politique ku muy àndal ci économie ku muy àndal ci social ak ku muy àndal ci environnemental ndax yooyu bu ko nit ñàkkee nit ommat ko ca yëfi boppam moom moom du am yëfi boppam loolu bunt la bu am solo ndaw yéen a may dégg xam naa yéen seen kër tey peut-être am na lu manqué tuuti rek peut-être ay deux pour cent wala trois ci jataay bi waaye nag nan ko jéem a gérer maag yéen jaayira <laughs> waaw ndaw li kon ñu waajal ko loolu ci xalaat bul nangu tubaab bi di la xalaatal bul nangu kenn di la xalaatal rawatina ci diini ji nga xam ne tey mbokk yi ku jóg woote woote yaa ngi ci pénc mi di débrancher nit ñi di leen brancher feneen te kat ay njommalateeg la nuy la nuy wan sunu yonent ba noon na aaxiru zaman da ngeen gis almasihu dajjal ñu ne ko nu muy mel mu ne ah lum leen wax de safaan bay dëgg masihu dajjal ñu ne waaw mu ne waaye masihu dajjal dana mën dana mën a toog rek ngeen jékki-jékki rek mu ne garab gi nanga def garab gi ne maa ngi fi waaw sawaa yaa ngi am jàmm garab gi ne ko am maa ngi am jàmm masiix dajjaal bu ñëw dana mën a wax am muus muus noo tudd mu ne muus waaw lu tax ñu tudd la muus mu ne damaa muus masiix dajjaal maanaam njommalat yi pourquoi ñun ñu bëgg lu ñu jommal te yonent bi jommal nu ba noppi waaw ku jommi ba noppi la doyati njom euh, ku la jommal jommi nan waaw waaw nun de jommi nan ba noppi ndax kii fi yàlla yónni woon daf noo jommal ba fees suñu xol yi dell ku ñëwati loo mën a indi sox merci dañoo bind ci sama loxo beeg sama jëbi lañ bind nangam ak sama digg ginnaaw geeg wasalaam wasalaam ñun jommi nan ba noppi téeréem bi mu indi jommal nanu muy alxuraanul karim min suratil fatiha ila suratil naasi waaw ndaw yéen ndaw ñi jommileen ba pare bu leen kenn jommalati bu leen kenn jommalati ba jële leen ci li ngeen nekkoon bëgg leen yóbbu ci leneen ndaw day am athabaat mooy sax ci dara dëgër ca waaye bu tey yaa ngi ci bu tey nii nga mel bu tey naa nga mel loolu ndaw du mel noonu tomb boobu mooy sunu première tomb tey ñu waajal ci ndaw ñi deuxième tomb incha allah mooy waajal ndaw ñi ci thaqafa al islamia culture islamique culture islamique penc mi dañ ko soxla buñ complexé wut ndax nous sommes quatre vingt quinze pour cent buñ complexé wut te culture boobu buñ complexé wut ki nga dëkkal te bokkul ci li nga nekk nim la arrangé la koy arrangé ah waaw waaw kon ndaw daa war a wut ngànnaay yu mat sëkk ci culture islamique waaye culture boobu nag mu nekk asila maanaam mu jëla ji ko ca source ba ndax sunu borom subhanahu wa taala may na nit lu mën a segge yëf yi ba baa mu yëg ne lii mooy cosaanu lii lu ko mooy rek la xaaj Abdul Asiis daan wax rek fekk ci jën lu dul yabooy ak maccaat naan jën a neex mu ne ah mu ne ah suñu Abdu mu ne nigal ba dem ndar <laughs> da ko daan jàngalee noonu rahmatullahi alayhi wa radiyallahu da baax waaye euh, ndaw li culture boobu nekk lu dëgër nekk lu fondamental je pense que noonu la professeur ndax loolu lañ soxla la ko même naan mën nañ laa wax ni islaam nangam nga topp ca yooye ndekee li nga topp du dara waaw ma waxati leen ko suñu waxtaan waag oustaz Alioune Gueye ca cene ba ba ba ma firi la aq la aqu dana lum siraatakal mustaqim waaw ca da kër ba daaro boobu ñoom bàcc siis ña nga faak imam Moussa Gassama ne ko Cees ñaata gaar la mu ne ma ñaar ma ne ko ñaata raay la mu ne ma am na bu jëm gee ngi new am na bu jëm ndar am na bu jëm waaw ngi new am na bu jëm ndar am na bu jëm Touba ma ne ko ba train bi ñëwee bu agsee train duñ fa nekk di demi rek ak këbalbati ni ñu def rek mooy dañ koy duweer mën ne ko jenn waaye mooy dem ca raay ba rek xëcc ñaar raaye taqale leen train ba jaar ci jëm gee gi new wala mu ta xëcc ñaar raay taqale leen train ba jëm ndar bu jëmee Tuubaa day continuer ma ne ko léeg-léeg ndaw ñi nekk ci benn train train bi fu ñu jëm euh, géngi new lañ jëm ñu duweer train bi mu jëm Saint-Louis ñi ci train bi ñoom yëguñ ci dara ndekete duweer nañ ko bu yàgg waaw la dalala daal loolu lay tekki waaw keroog conférence ba oustaz Alioune Gueye jéexalu ko ndax dafa xëm waaw ndax misaal yooyu dafa am solo ndaw ñu ànd nekk mbooloo dugg ci train jëm gee ngi new dem ba Thiès ñu doyar leen miin gee ngi new ila Saint-Louis ñu toog rek ñu toog rek fi ne bari na ñoo xam ne fi ne ligne biñ nekkoon doon ci liggéeyal sunu borom ligne biñ nekkoon doon ci liggéeyal nangam jenn waaye doyar na leen ba jëli leen ci ligne boobu teg leen ci beneen ligne ñoom ñu toog rek baax na loolu la ñuy bañal ndaw ñi moo tax mu culture dafa am solo culture boobu nag dafa am ay arkaan yu la ci dimbale la ci jiitu mooy alxuraanul karim mii mbokk yi képp ko di ndaw war ngaa fexe ba xam ko mokkal ci dara boo munta mokkal lépp waaye ñu tafsir la ci dara boo munta tafsir lépp parce que kat tafsir bi am na lu muy def ci ndaw alxuraan ci boppam am lu muy def ci ndaw waaye sunna as sunnatu nabawiya sunna si yonent bi waaw moom nga jàng ko waaw xam-xam yi ko ŋànk nga xam leen waaw waaw te xàmmee sunna yi nag te bañ a jël benn groupe ci sunna yi bàyyi beneen groupe ba déedéet jëlal lépp ndax jàngoon nañ ko ci bind yi camarade yéen a ngi ci kër yi yéen a ngi ànd ak ñun jataay bi ndax rassemblement bi ci euh, jam ñaajo dañ dañ ñu wax ne nañ ko arrêté fii ak trois semaines kon nag yéen ngi toog ci kër gi salle bi man rek maa fi nekk ma ak sama technicien bi euh, Alassane Thioune waaye jàpp naa ne yéen a ngi ñuy jot bu baax a baax ndax maa ngi jot nii euh, commentaires yeeg ñoom seen yooyu ci fi ma tiim mi ci ci YouTube ñi eme ak ñi <laughs> partagé tubarkàlla merci beaucoup mes mes su ko defee culture boobu nga jàng ci xayatu saxaaba dunduk mag ñi dunduk mag ñi a saxaaba mooy ña àndoon ak yonent ba ñooñu daa am ñu ànd ak ñoom ñooñu daa am ñu ànd ak ñoom ñooñu daa am ñu ànd ak ñoom ba tey ku la mag ku ne ëpp lay sagar wala foo koy wax nga jàng dunduk ñooñu ak seeni jaar-jaar am na solo lool dunduk ñooñu ak seeni jaar-jaar waaye nga jàng fiq nag tuuti nga jàng fiq ak li tax fiq jóg nga jàng aqida ak li tax aqida jóg hmm? waaye bul fàtt nag ilmu tazkiya bi nga xam ne ñu bari dañ koy fàtte mbokk yi ñetti xam-xam nga fiq aqida tazkiya tazkiya ci ñu ko xamul mooy li ñu tuddee tasawuf xam-xam bi defaroon ñi defaru te nekk fi ba léegi di defar ndax xam-xam boobu maam suñ Tuubaa ci Masaalikul Jinaan mu ngi ñuy nekk ci li waxi waxi ca mag ña boole leen ñoom ñaar wala ñoom ñoom ñaar fiq ak tasawuf mooy tax a mat nee na boo demee tasawuf dong am na koo don boo nekkee fiq dong am na koo doon boo boole nag faqat taxaqaqa mat nga sëkk luy ilmu taskiya doon nañ ko jéem a jàng bi ñu tollee ci gam màggalug Tuubaa ca xuqal bu kaw waaw ilmu taskiya mooy xam-xam bi defar euh, xolu nit ki ba nit ki mën a dëkk ak bokkam mën a dëkk ak moroomam mën a jariñ ñi naw leen te du lor ko ko mu dëkkal xam-xam bu yaatu la xam naa jamonoom dina ma si ñëw moom itam ci yooyu tubarkalla wala xaadim njaay tasawuf mële euh, tubarkalla yaatal ko ba jóge nga jàng an nuzumul islamiya <laughs> mbokk yi xale yi na ngeen déglu a nuzum al islamiya luy nuzumul islamiya mooy yi lislaam rëdd nose ko bàyyi ko ci pénc bi tubaab bi ñëw mooñal ñu ko jox na ko ndekkiti joxul ñu dara lu bare bare bari ci wàllu politique gu tey ci économie sociale environnementale ñu ngi ko jële ci lislaam ci Omar ibn Khattab ma nga xam ne yonent bee ko yar jàngal ko ko mu jàngal na ko waaw bëri na léegi nag tur yi ñun la ñuy jël rek waaw bàyyi fële yëf yi defee na du ndeketi yoo yëf yi moom la soo jëloon benn baat rek benn baat euh, ñoom Cheikh Ma Tidiane Fall baatu douane baatu duwaan mu ngi jóge ci diwaan rijaalu yoon wala rijaalu diwaan moo di jënd ak njaay ci ku dëkkul ci dëkk bi doon ko fi indi ni ko douane di defe léegi na ko rijaal yoo doon defe te Omar bu Xattaab moo ko santaane woon tubaab bi daal di jël rijaal teg ko fële daal di jël douane jël naan douane douane douane te <laughs> moom dong nga waaw tubaarkàlla dégg naa ci mbokk mu am solo mu ciy waxtaan barki démb yàlla na ko yàlla fay an nuzum al islamiya waaw euh, tarif tarif taarif la arab doon wax mooy lan marchandise mi ñu bind ko xam lu mu doon taarif ko léegi tubaab bi ñu daan ne euh, magasin dégg nga baat yu baree bari la ala kulli xaal nusum islam yooyu boo ko bu ko ndaw li jàngee ñu jàngal ko ko former ko ci dina xam ne kon li fi nekk ndekete mu ngi fi woon tubaab bee ko jël rek tubaarkalla xoolal tey lu mel ni Gibraltar gii tey jabal taarix tubaab ne Gibraltar jabal taariq tubaab bi daal ni Gibraltar te bari na yum ñu def noonu bëgguñoo ñoo tafu ala kulli xaal man yuridullahu bi xayran yufaqihu fi diin hadis ba nee na ku yàlla bëgg sa tey sa ëllëg baax da dégg sa diine allahu akbar man yuridullahu bi man yuridullahu bihi xayra yufaqihu fi diin ku sa tey nar a jag sa ëllëg nar a jag da dégg sa diine mbokk yi ginnaaw culture boobu dafa am beneen culture bu mu penc mi soxla mooy culture général je pense que lu ñu ko waxee culture général di sànni allahu akbar ndaw ñi bëgg naa ngeen am ngànnaayu culture bi ma njëkk a wax waaye ngeen am culture général science mii tibb leen ci ba doyal waaw nouvelle technologie bi tibb leen ci ba doyal loolu mooy tax nga xam liy dox ci penc mi fu mu jëm ak fu mu jóge waaw te itam ngeen bàyyi xel ci jàng tubaab jàng leen ko de jàng leen anglais jàng leen chinois waaw jàng leen arab jàng leen euh, allemand yooyu yëpp xam-xam yi nañ ko jàng lu tax alayhi salaam moo ne woon man taallama luqata qawmin amina makrahum allahu akbar nee na ku xam làkku nit mucc ci seeni pexe lakk woo xam rek mucc ci seeni pexe léegi dangay ngay dégg ci réew mi yu koy wax ne ngeen baal ma samay wolof leerul léegi lan nga leer la lan nga leer ngeen baal ma samay wolof leerul léegi lan nga leer le ginnaaw wolof mi nga doon <laughs> leer ko wala samay pulaar leerul waaw waaw lan nga leerle isaan mu nga waxaat na moom alayhi salaatu salaam ci njàngaleem ma xusul xikma min ay wiain xarajat fu ngeen fekk xikma fu ngeen fekk wax ju jub mbaa mu baax jël leen ko bu leen xool ndab lu mu jóge ndax yéen a ku réer la di ko wër te ku la dara di ko wër foo ko fekk doo am complexe ak sëgg for ko mukk nag mbokk yi séminariste yi yéen a ngi ci kër yi moo xaar leen ko man ci saal bi man rek maa fi nekk maag suñu technicien Alassane waaye mi ngi koy def ci yëf yi ba ngeen man koo am ci seen kër yi eh, xam naa sax peut foofu dana fi gën a yaatoo ndax bu ngeen ko branché ci seen télévision yi ba ñëpp di ko seetaan mën naa am góor ña jigéen ci kër yi sax ak janq jeeg mbindaan yi man cee ànd ak ñun janq jànq mbindaan yi man cee ànd ak ñun ñëpp tabarakallah mbokk yi kon mbir mi jeexut nañ jël pause tuuti ne tabarakallahu eh, ni ñu ko doon defee bi ñu nekkee ci salle bi bu leen neexee ci kanam surtout ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 nu ànd ci suñu jotaay bi nga xam ne day am lundi di am mardi di tàmbali 8 di jeex 10 heures ñu cay laajante laaj yi nga xam ne mënuñ koo laaj ci émission yi ndax peut-être mu xat wala dugg nga xaw a jafe sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ngi ni taxaw yor seen i këyit